seen site d'information Sine TV nekkee fi ci diwanu fatik andi leen lu bees tàkk lépp lu jëm ci walu sport culture éducation santé ba ci politique wala sax information ñu leen di proposer ay vidéo yu mucc ay bi nga xamantene da fay top lepp lu jëm ci walu actualité Sine TV nek fi ci diwanu fatik togal fi région bu fatik ak Sénégal Sine TV joko dial daje bi dafa am solo parce que dañu nekk ci maanaam euh, période boo xam ne dañuy maanaam changé créer lu ñuy wax ARP ARP mu nekk benn euh, euh, structure boo xamante ni dafa ñëw pour maanaam encadrer e-, exercice maanaam pharmacie ak ak médicament bi ni ñu koy jëfandikoo e di waxaale aussi lu ñuy wax maanaam pharmacovigilance saytu boobu ñuy def garab bi nga xam ne andi nañ ko ci terrain bi ñu topp ko ba xam ndax lañ ko autorisé woon mu nga fa ba tey ou bien am na ay tolof-tolof ñu mën a expliquer maanaam population yi tolof-tolof yooyu lan moo tax parce que garab boo gis am na ay tolof-tolof mm-hmm. waaw mën na la faj mais am na aussi ay tolof-tolof nit ñi xamee ko noonu bañ ñëw rek ne bon garab yi ñu jox baaxul et cetera non garab bi bu fekkente ne da nga koo jëfandikoo mën na baax ba ñu def dara comme mun na la andil ay wokkatu wala benn bopp buy métti et cetera il bon ñu wax nag ñi nga xam ne ñoo ciy jëfandikoo ak ñi koy utiliser ak ñi leen koy jox ñu expliquer leen ba bu loolu amee ñu mën a wax ak ñooñu pour dalal seen xel loolu ci bokk na ci ndaje bi beneen bi mooy loi bi nga xam ne moo tënk lépp luy pharmacie ak maanaam niñ koy doxale comme loi bu bees la dañu waroon nag séddoo ko ak ñi nga xamante ne ñoom it ñu ngi ci suuf pour ñu gën a comprendre maanaam loi boobu loolu moo tax daal ñu ñëw fii convention collective bi dafa am solo ndax bu ñu amul maanaam euh, këyit boobu da tax pharmaciens yi ñoom dinañuy liggéeyloo ay xale mais bu ñu loo xale yi xale yi dañu am tendance dem defi leneen parce que li ñu leen di fay euh, amul solo te ñoom amuñu fay foofu ñooy fay amuñu fuñ ko teg loo xam ne dafa tënku ci pharmacie. am na nag comme dafa nekk en même temps lu ñuy wax c'est par le droit commercial pharmacie dañ naan commerce la ndax dañuy jënd di jaay ñu daal di sukkandiku nag ci convention boobee mais boobu nag bu seen convention ndax convention boobu la muy fay payoor ya dafa tuuti. léegi nag moo taxoon ñu bëgg am ñun convention boo xam ne pour affaire pharmacie la ñu tënk ko def ci ay salaire yoo xam ne kii door a ñëw ak ki nga xam ne am na expérience su ñetti at ba juróom-benn at bu ñu bokk payoor loolu dina tax buñ ko amee mu gën a tax xale yi sawar toog ci officine di liggéey et puis dimbale aussi borom pharmacie yi ñoom it ñu mën a nopp lu def defi leneen et cetera looloo tax ko mu am solo. waaw loi bi li ñu ci mën a jàpp mooy vraiment am na ci benn maanaam euh, euh, comment on nan lañ koy waxee sax ci ci wolof am na ci benn euh, ay pàcc yu yu bëri yu loi bi def. parce que dafa fekkoon loi ba le boo defee ay tolof tolof ci garab yi ñu di la tëj maanaam juróom-benni fan wala ay ñetti weer wala ñu ne laaj la maanaam junni ak juróom-ñetti téeméer wala boo ci delloowaatee ñu duble ko xam nga loolu day tax. ku sàcc ñu tëj la nga yeewu da sàcc milliard après ñu tëj la nga ñëw jël sa milliard dem léegi nag loi bi moom ay fukk fukk juróom fukki millions lay wax ak ay cinq cent millions donc loolu tax na jéego boobu tax na ku ko bëgg a def tey ji di nga di nga xalaataat mooy yaakaar naa ne xam nga trafic bi loo gis rek ci xelu nit ñi ciy dox la xam nga ki nga xam ne dafa bëgg a def crime daf koo xalaat ba pare mais bu xalaatee ne la ko cay fekk du am solo day dem def su xalaatee ne gars yi jël nañu matuwaay yokk affaire yi et lii li ko ciy fekk xam nga boo sàccee milliard war a tëdd léegi ay fukki at bokkul ak ki daan sàcc milliard di tëdd ay ñetti fan ak juróom-benn fan. donc yaakaar naa ne loolu comme ñoom xel la ñuy doxe moo tax it ñu toppale ci seen xel yi daal di jël kii yokk sanction yi. fi mu nekk nii mën a goo wax ne mu ngi wàññeeku mais en tout cas tax na ñoom seen taxawaay mu ngi koy seetaat. loi bi moom ñu ngi ko taxawal le 13 juin 2023. la loi 2023-06 du 13 juin 2023 donc 2023 bi la machallah macha site d'information sin TV nek fi ci diwanu fatik andi leen lu bestak lepp lu jëm ci walu sport culture éducation santé ba ci politique wala sax information ñu len di proposer ay vidéo yu muccu ayib yi nga xamantene ne fay top lepp lu jëm ci walu actualité sin TV nek fi ci diwanu fatik togal fi région bu fatik ak Sénégal sin TV joko jàll.